jërëjëf sëñ Gana waaye ba tey gis nañ ne comme que tooñ la la def loo xam te ne dafa àgg ci suñuy xol man nañ ne euh, tooñ googu yi jullit yi tamit ñi ngi wax bu ñu bëggee fayu nga yaakaar ne ci yan pexe lañu war a mën a jaar ngir loolu ñi ñu laale ñu mën a fexe ba mën leen ko xam nga ñun lislaam daf ñoo digal yonente bi dane man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadi in lam yastati fa bi fa in lam bi xalbi wa dalika adaful imaani ku gis yéen lu la naqari na nga ko wax boo ko mënee faj ci sa loxo bu doon loo mën a faj la na ko faj tey Macron bu génnoon ci mbedd yi di dox jullit ñi dal ci kaw seen pas-pas egg na foofu kon man nañ mais comme koo xam ne yaa nga tata ay junni junni nit a nga lay garde ba ne su ta yegg ci yow kon loo ca man kon defe naa jëfandikoo loxo boobu doo waaye nga sañ nag génn ci say micro sañ génn ci say plateau génn ci say programme ci say gàmmo ci say conférence wane ne liñ def rasulullahi naqari na bu la yàlla natoo doonoo koy wax ñu di la déglu doonoo ko mën a wax ci mbooloo it nga fas ci sa xol boo jullee naafila wala balaa ngaa julli naafila naqarlu ci sa biir xol liy noonu lislaam bi wax ñaan yàlla yàlla ngay ñaan dellu ci moom ndax yàlla kat boo ko ñaanee dana la may surtout nga ñaane ko ci ñu laal ab soppeem surtout nga ñaane ko ci ñu laal yëfam point boobu nga man ci ci ci ci ci ci jullit bi ci côté bi mu nekk ngir mën koo naqarloo. est-ce que boycotter seen waa xam nga loolu dama dul xam ba xam ki koy boy boycotté bu fekkee ne tey wane na naqaru bay manifestation génn wane ne naqari na la ndax ñun dañoo amul naanam daanaka suñu bopp ñun dañoo jëggaani suñu lépp ci àdduna suñu lépp dañ ko jëggaani parce que nit ki faaw mu xam boppam ci ne boo mënee war ngaa mën a dem sans nangam te yow misaal benn bis bi ngay naqarloo wala tey nga ne man de bàyyi naa benn produit wu sàngam ngir ne l'islam lañ laal wala nangam ak nangam tey am na réew yoo xam ne bu ñu ko defee ñoom mën nañoo mën nañu loolu parce que am nañ seen produit yu bopp am nañ seen nangam mais Sénégal lu ëpp ci Sénégal daanaka ñoom li ñuy dundee la ñoom. est-ce que du looloo tax tamit ñu bëgg ñëw jàpp di ñuy noot bu ñu nee jàpp du ñu noot it du ñu ñu noot ci lislaam moom. man mhm. nañ ñoo not ci man ñoo nax man nañ ñoo not ci seen i business waaye tey jii bu rasul lay laajee bakkan ñun ñëpp jeex. Mhm. loolu moom mhm. bu rasul laajee bakkan ñëpp jeex. loolu loolu loolu loolu mënee sunu cee not rasulullahi gën lekk rasulullahi gën naan rasulullahi gën ci noonu lu ne tubaab ba kanam la tey la woon ngir rasulullahi james na koy xeej te des na ko ci kaso te benn intérêt adduna taxu bëgguta moom i dëkk tax muy am bëgguta jiitam réew tax muy am benn intérêt personnel taxul lu senge l'islam képp moo ko taxoon a jóg luy aar l'islam képp di kenn nit mais loolu mu dëggal ci boppam moo ko may tey lépp daw topp ko loolu mooy këlkin yi ma la wax bu ñu ko tegee waaye wa ma min daabatin fil ardi illa ala risquha waaye ku dund ba déwén lekk ba déwén yoral ay milliards bu yàlla ne suba doo reer doo reer bu yàlla ne suba ngay dee nga dee bul yor ñaar dërëm bu yàlla ne danga dund da nga dund mais mais tawxiid ji nañ ko jiital yàllaay dundal du France nuy dundal de mhm. yàllaay yore du France nu yor de mhm. yàllaa nu yor yàllaa nuy dundal mhm. sëñ Gana mu mel ne tamit loolu wax nga euh, lu am solo waaye pour ñu jeexal fi rek gën a yaatal euh, pour nga soññi ñi nga xam se ne ñoo nit ñi ñuul ñi ndax dafa mel ne loolee tax ñu mel ne ko amul ci seen bopp bàyyeeku ñu bëgg leen a jàppe comme jaam ndax comme li nga waxee ne ñu bëri ñoom ñooñu ñoom tey ji ñooñu ci mën a jàppale suñu ginnaaw est-ce jotul tamit nit ku ñuul ki gëm boppam ndax ñoom sax dañuy bañ sax ba seen seenu làkk sax buñ jëfandikoo li nga xam se ne moo di làkk français bi wala defa yooyu defe nañ ne fi ñu toll nii nekkul nit ku am maanaa est-ce que loolu tamit taxul tamit ba tey njaam nga diggante loolu ñun moom dañoo bokk ci ñuy bañ loolu xam nga da ngay Sénégal kuy def plateau ñuul kukk xam ne yaa nga juddoo ci àll ba say ndey ak say bàyyi mën naa am koo ci waxoon a ah, xamu ko xamut bee ñooñu ñu ne intellectuel nga toog ci télévision bi parler parler ba mu neex nga ne mais d' abord nuñ koy waxee sax ci olof xawma je ne pas d' loolu mooy lan Sëñ Tuubaa da fa lay sa yuji bu sawadul jismi safahatul fata wa suul fahmi gis nga bu ñu déggoon suñu waajooju duñu am benn problème Sénégal nu ñu dellu si tuuti xool njàngaleem Sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa dane woon ñuulub der du tee comprendre texte yi ñuulub der du tee cëddu ca séddu cër yu rëy yi tey adduna bi xoolal foo tudd adduna boo tuddee ci école ci nit ko abuk bañ boo tuddee ci koo xam ne dafa taxawal jamono tabax jamono da nga dellu ci sëriñ Tuubaa xool ko combat combat bi mu combat ak nasaraan bi ni mu leen manee tey fu tubaab bi mës a am chef de canton yi taxaw wala tubaab bi fu a installé nga gis fa nangam sëñ Tuubaa def na fa seex soroor yaa ngi fay jolli arxuraan di fa riir tey jii ñaata ñaata ñaata ñaata loolu xeex boobu mu xeexoon mooy loolu mooy xam boppam faaw ñu xam ko Sénégal dafa tàmm maanaam ah, nit ku ñuul dafa tàmm toppe al toppe jàpp na ne maanaam bu demee rek moom dong ñàkk li muy am kon da faaw ñu yaraat suñu ndaw yi jamono faaw ñu jàngalaat suñu ndaw yi jamono xoolaat ca borom xam-xam yu jëkk yi xoolaat ca borom position yu rëy yi nga xam ne xeex ak noteel lañ fi nekkee woon di ko bañ yàggoon nañ ñu gën a mën a not mais bañ ko tàmbalee xeex dañoo dem ba xam loolu loolu dañ koy tàmbalee ci fu mu mën a doon ci réew mi ci feneen fu mën a nekk loolu waxuma la même même même tey Sénégal gii rek ku la gën a jege nguur day jàpp ne moo la gën bu photo yi ñëwee moom lañ ko war a jox bu mooy nangam buy ñëw yow da nga war a wàcc télé bokk télé bi liggéey ko mais da nga war a wàcc moom mooy jàll loolu warees na ko defal ku yàlla fal ku jiitu waaye dañ koy def ba ci koo xam ne moom bu ñëwoon kër Gana Messere pour mu gis ko sax problème la war a doon mais buñ dajee man faw dañ may ko wàccal xajalal diw mooy ñëw nangam nangam déedéet yaa ayyuha nnaas innaa xalaqnaakum min dakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafuu inna akramakum inda llaahi atqaakum ab saay-saay mënta gën kenn mën naa noota ci caay-caay waaye ku gën te gën a màgg mooy ki gën a ragal yàlla am na solo jërëjëf sëñ Gana moom la ñu daal di àndaloon muy sëñ Gana Messere Maxtaar moom la ñu fekk si woon ci këram ngir waxtaane euh, ponk yu am solo yi nga xam si ne moom ngeen daal di dégg ñu jot ko jukki ci jotaay bi lan ngay tàggoog ñi lay topp ci 24 ñëpp di jaajëfal nag waa Xuddaamul Xadim bu baax ci taxawaay bi ñu taxaw démb wane seen naqar ci njiitu sëñ Hamza ak sëñ Sidi Mbacke si Abdul Xadr maa ngi leen di sant sama kàddu bopp ndax li may wax dafa ma concerné ci en tant que taalibe sëñ Touba en tant que jullit bu ñu laal pas-pasam te xanaa lu ma yées yées lu ma ñàkk ñàkk jomm lislaam teral na ma teraanga ju toll ni bu doon laaj bakkan ma war koo mën a joxe kon ci en tant que jullit maa ngi leen di sant di sant mboolem ku taxaw ci naqar lu lii noo ngi lay ñaanal yàlla noo ngi lay sant noo lay gërëm ndax ñëpp la war a naqar di wane ne naqari nañu ñoo ngi dellu si waat di wax ne naqari nañu ñu ci war a wax nañu ci wax wax naa ko ñu jiite réew mi nañ xam ne seen xarit daa juum wala seen kilifa daa juum nañ ko wax juum nga boo amee sa waay buñ ko tooñee dimbale ko waaye bu tooñee dimbale ko daa juum xamal leen ko ne daa juum ndax kat mënoo dugg ci jàkka di wala jullit nga di woor di wax alquran te buñ tuddee lislaam doo wax lislaam a jiitu kon noo ngi leen di sant yéen waa 24 actu di leen gërëm ci seen taxawaay wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Gana Messere woon moom lañ fekkoon fii ci këram ngir waxtaanee li nga xamante ne mooy kàddu yi nga xam ne jotoon ngeen ko fee dégg euh, kii di njiital bu France di Macron jot ko fee yëkkati euh, jullit yëpp di ko ñaawlo rawatina umma islami bi dégg ngeen ci li nga xamante ne moom lañ ci jot a jukkil ci ay yaatal euh, mu doy sëkk ñu leen di sant bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen a ngi doon topp ci 24actu.com di ko sant ci moom mi ci jotaay bi ni ñu ko yombale ndax ginnaaw bi ñu ko fi woowee rek yàggul te xam nañ ne yitte yi xat na waaye lépp daan nañu koy nangul te xam ne lépp rek eh, ci lu baax rek moo ñu ko tax a ñu koy sant baax di ko gërëm di sant yéen ñi nga xam se ne yéen doon topp ci 24actu point com eh, di leen jox dox daje ci beneen yoon